Livre le Sauveur, tome 1 et tome 2. Tome 1 bi titre bi La merveille du Seigneur. Yonenti bi alayhi salaatu wasalaam Boy xool sunu borom limu am ci teddaange tënk ko ci ben bat Moustapha alayhi salaatu qui Moy kéemaanu sunu borom Moy li gëna a tedd lu sunu borom am lu sunu borom sàkk boko ko da ngay dem ci ulul azmi ibrahima alayhi salatu wassalam nuux alayhi salatu wassalam Musa alayhi salatu wassalam isa alayhi salatu wassalam ba nu dawalee course bi xam nga li c'est le premier sans second Moustapha alayhi salatu wassalam lepp lo gis premier am deuxième wala compétition ulul azmi jëy suuna njëkk daw nous jàpp sunu nous mi ngi sàkk 123 yonent la SAC nous daw 313, premier moi 313, yoy, l'en message nous l'en nit nek na yonent te du ne Bo sunu gouvernement ministre d'état sans portefeuille et sans ministère Amne ministre ministère am portefeuille am budget yonent yi yor portefeuille yo yonent yi yor portefeuille yor budget yor ministère ne yàlla nee na 313 lañ 313 yooyu cinq lañ ci lim ci vingt cinq yooyu ñu lim ci alxuraan ñu dawal course ulul azmi génn mooy les cinq grands prophètes yi ma lim léegi ñu dawal course Moustapha génn premier des premiers des premiers ma gan laaj ma lu tax sunu boobu dafa ni examen bi suba la Jibril ñëw ci guddi bi na ko yàlla nee na lii lay laaj tontu yaa ngi nii bac le favoritisme de son seigneur à son endroit n'a pas joué en faveur de ses adversaires, les dégradant un par un jusqu'à les effacer totalement. sunu borom mo far ci moom a ko wax ragal pété wala sunu borom dako ko wane d'une façon manifeste gaa tok toog mu ni mooma leen gënal alayhi Ma wasalaam gan nit dina am ñent soxna toog ak ñom

dugal nooy ci ci diggante bi julliwuñu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax kurus bi ñu def ko nii pour nit ñi di fàttaliku salaatu ala nabi kon miim aram dell miim dell miim valeur numérique am égal 40 aram dell boo ko jëlee égal 8 nga jël miim ba bi ci topp muy 40 nga jël dell bi muy 4 40 plus 40 égale 80, plus 8 égale 88, plus 4 égale 92 Muhammad Rasulallah alayhi salatu wa Comme Comme, course bi joli ci 92 Minga Khameni, xamee ni xasida yépp kan Mohamed ko alay Seydina Muhammad alayhi salatu wa salaam mu mu ñëw nekk amul bind bu لا إله إلا الله جاي مالك جاب سك رسول لا إله إلا الله نجل إنسا لا إله إلا محمد إنسا أندول لا إله إلا الله محمد داود بوبو غنا نياك أندول لا إله إلا محمد إبراهيم دفا أندول gis nga cere mew dong la ilaha illa la motax tome 1 bi la merveille du Seigneur ñu ñëw ci tome 2 bi moom le sauveur titre bi l'intercesseur par excellence gis nga mama gan balaa ngay xam ni Moustapha bari doole ëllëg yoo ma xiyaam ma yonent boo woo mooy la wool patron bi man de buma yalla ne ma Cheikh Mohamed Abdallah Cham yo ma xiyam avance limako ma laaj moy yow kanane muné ma man dong man ko baye ma ma xaar muné ma man muhammad rasul allah salaatu wasalaam ma ne ko baye ma ma ñëw muné ne ma lu tax ko yaa kon wala sawfa yutika rabbuka fatada wala sawfa fa ëllëg khiyam yutika rabbuka fatada dina rabbuka fatada dina la may di la may nge ramu di ramu di ramu bani fatada doyalna te mustafa neena na ëllëg khiyam alayhi salatu wasalaam du doyal mukk ci ramu bi du doyal mukk ci ramu bi tant amna ben julit ci dundam mas na wax benn baatu laa ilaha illallah muhammad rasul alayhi salaatu wasalaam sukkul ci kanamu boromam du tuubal jullit boobu di ko jéggalul di ko jéggalu ba sunu borom na ko jëlal yóbbu àjjana dooley Moustapha loo ko yan àttan ko alayhi salaatu wasalaam livre le sauveur dama jàpp ni sunu borom dafa dimbale dimbale jaamam bu tuuti bi jaamam bu ndaw bi sagale ma ko kenn kenn ku ne ci saal bi yalla mënoon na def mu bind livre Sauveur dañuy sant bu baax ki nga xamee ni c'est le seigneur des poètes Mais maam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul xaadimu Moustapha jërëjëf seen Bamba jërëjëf seen Bamba jërëjëf seen Bamba jërëjëf seen Bamba cey Cheikhul Khadim nee naa ko oui séduit et charmé je le suis quel qualificatif donner au maître à ta plume Sel ki na marche Selman ke ver la lumiye Di profet Aleyhi salat wa salam Sen bamba pou djelye khali mam Dok alay kwe tak Mohamed Rasulila aleyhi salat wa salam Kom sen bamba tagam Yoy mi tag yon eti wa aleyhi salat wa salam Don ko tag Layala bakel Layala nangu Layala aksept Bata yi di Nyo am ay talibe Yi tag gen tou Di defon tou Wale nip Mang nyo bak nyen ko trase Mam mou do radiallahu taala anhu moo doon gàmm di gàmm boo nee gàmm xel yëpp dem fan waaw moo tax ñu koy roy di ko roy ba yàlla di ñu sagal ñiy gàmm fondation Kër Rasoul alayhi salaatu wasalaam damay ñaan ku ci bokk na ñépp daw uti livre le sauveur jullit àdduna bi yépp bu ko na ñépp uti ko même ku newul ci diine bi uti ko ndax mën na laa dugal ci diine wala mën naa tooyal sa xol ba nga nangu ne seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam la yàlla tànn la yàlla jiital yonent yépp a baax nag téere yépp a baax amana rasulu bi ma unzila ilayhi min rabbihi wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi gëmal malaayka yi wa kutubihi gëmal téere yépp wa rusulihi gëmal yonent yépp mais attention mama gan loo gis am na njiit bu ne la gëmal malaaka yi malaaka seen sang kan la comme sol da nga ni jibril alayhi salaatu wassalaam pourtant jibril du yonent jibril du yonent mais boo ne jibril da ngay ci teg alayhi salaatu wassalaam kon gëm leen yonent yëpp gëm leen téere yi gëm leen malaaka yi wala jibril mooy seen patron gëm leen téere yëpp gëm naa téere yëpp waale kat axuraanu karim mooy kaamil mooy li mat lawan zanna hazal xuwaanu alal jabali lara aytahum xasyan mutasadiyan sunu borom nee na kaamil bi boo ko tegee ci montagne dana toj népp ndëx ndax ragal bu yàlla kon téere yépp alxuraanu karim moo mottali seen défaillance moo complété moo matal li nga xamee ni leneen du ci tegu alxuraan bu ñëwee bu ne yàlla wax yàlla nee na jeex na amul commentaire wa rasulihi gëmal yonent yépp waale déet bu leen yamale wa rafarna bardahum ala bardin darajatin lakka zikraka patron bi mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam loolu yépp ngir taxaw rek ci miim aram dell miim dell ci léegi la Sauveur bi nga xamee ni dafa nekk benn package ñaari tom lan fas yéene génn incha allah rabbi ñaari tom dafa ànd ak benn clé USB clé USB bi lan moo ci nekk am na benn reportage buñ def ci Cheikh Mohamed Abdallah Thiam soppe na ngir mu wax xasida yi fan la jóge xasida yi lu ko indi ku bëgg firi gént jàmbu da biddanti nit la mu wax moom doo nga xam fi mu waxe ak li mu waxe moo tax corriger ay poème dafa jafe mën nga corriger benn livre bu nit bind mais booy corriger poème foo kii bind poème bi toog ndax foo nga laaj ko foo waxe ndax moom rek a xam fi mu waxe ak lan la yëg ndax yëg yëg-yëg boobu moom moo ko am moo tax looloo indi ma génn ndax man ku ma waxoon yaa cinq ans que dinaa génn aw moon Facebook aw moon dara luy nekk ci réseau sociaux yi walla li ma wax loo li ma génn loo mooy xaside yi nga xamee ni foo ma wax yëg-yëg bi ak nan laa ko dundee ak ndimbal bi nga xamee ni yëg naa ko suñu borom teg def na ci loxo ana ana ana junior junior way way way nañ ko dans plus de seize langues xaside yi way nañ ko en chinois way nañ ko en anglais way nan ko en lingala way nañ ko en espagnol en italien way nañ ko ci arabe way nañ ko ci bambara way nañ ko ci té li gën a bi ne mais ba sunu di wax na poèmes seront chantés dans toute langue et dans toute mélodie Bob xaw ma Ablaye askan bi kon man dama dem Italie ko ci italien ma jóge fa Espagne langue ma Allemagne jóge fa dem euh, Afrique du Sud ndax way nañ en Zoulou def Ablaye askan bi am ci ben doomam bu tudd leen xale bi xale bi nga ni elle parle plus de 12 langues macha allah kon langue 11 loo ci yokk 12 douze kon mu dem ci huwa onze te damay nangu sa onze bi laaj ma lu plus 2 égale onze mu dugg ci alayhi sama journaliste yi ndax mas ngeen gis ku dugg studio way quatre douze way ci sept mois man de gisugumako bo le ci Ablaye Askan bi na 28 ans wayu gis nga maman Aïcha Rasoul lo tok 28 28 ans defoko bo ñewé nek ci poème ma plume même reliée au dictionnaire des savants ne serait rassuré, ma plume pour toi les rek dal xel sama xalima buy tag mustafa alayhi salaatu wasalaam moy ke muy jóge ci sunu boroom mu teug ko mom ci alayhi mu transité par ma modeste main te su boobaa ni ne muy dana juste dana courtois dana valeureux dana noble ndax le poète le ndax le premier poète du prophète moy kan sunu boroom ku tag ku ne da ngay feelu sunu tag ken tag Instagram snap tiktok bépp réseaux sociaux war nañ ko jël di fa divulguer di fa jàllale ay message ngir mu tas ci àdduna bi baneen bi ngir nit ñi xam ni patron bi mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam baneen bi mama gan kuy dawal oto munoo lire yaa ngi livre soba mais yaa ngi sa oto di def trajet fii ak Tambacounda walla Louga walla Ndar ma wax Ndar ndax fa laa juddoo waaw di nuyuwaan ndax Ndar au passage mënoo lire booy dawal oto mais mën nga déglu su boobaa nga teg sa son di déglu message bi di ñëw ba nga fa mokkal poème yi ñàkk ñu ko gën dañ cay jotul kon li nu war a fexe mooy message bi dem fépp dugg fépp ba ku ne jot ci gis nga jamono ji damay wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko yàlla yoon woon en 2022 li muy njëkk def mooy dem orange du wifi bu baax de partager connexion bi looloo tax livre le sauveur sunu borom def ko jox ñu ndigal ñu def ko ci langue la langue française la langue de Molière def nañ ko nak en arabe imam Abdoulaye Mbaye Rasoul moko def def nañ ko aussi en anglais te inshallah, de ko def ci langue yu bari ndax ñepp mën cee jot